شر الميامين وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين mbokki julli di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bi nu santee sun subhaanahu wa taala julli ci mustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal ashaykhul xadim noo leen di nuyu di leen siyaara den ndokkeel ci bis bu tedd bii de balu ñëpp xaq di ko bal ñëpp ñaan suñu ñu jéggal di dox suñu digganteeg moom ci ay njuumteeki mooy di dox ci sunuy diggante nun ci ay xàqit yàlla na nu ci wutu fayal nu ko fa innahu jalla ala taaka qadir bi ijaabati doa daa inda dir waxtaan tey yoon ñu bokk jëmale ci tomb bu am solo muy mafhumul ibaada wala bokk ahamiyatul ibaada solo si nga xam ne jaamu yàlla am na ko jaamu yàlla nag buñ ko waxee mayees na ko tënk ci lu gàtt mooy topp ndigali yàlla yi nga xam ne def ca deli ci képp ko ko topp moytu tereem yi nga xam ne daf ca tëkkoo ci képp ko ko toggoo euh, nga xam ne baat la boo xam ne dafa mën naa làmb mboolem li yàlla bëgg te gërëm ko lépp ci wax yi ak jëf yi moo xam yu nëbbi la moo xam yu fenj la ndax jaamu yi dafa silli ko ay xaaj am na yoo xam ne làmmiñ a koy wax am yoo xam ne céru koy jëf am yoo xam ne xol a koy fas ya xool di fas na mooy jaamu yàlla yu nëbb yi yu jëf ñi di ko gis na mooy jaamu yàlla yu feeñ yi su dee jaamu yàlla yi nga xam ne yooyu jëf la ñuy gis mooy lu mel ni julli woor xaj topp ñaari waajur jokk bokk bu dee yi ñuy wax ci làmmiñ bokk na ca digle lu baax tere lu bon rafetal jëme ci dëkkandoo ak i jirim ak i miskin dafa la jëf bokk ci jaamu yàllay wax yi ba tey ñaan yi nga xam ne lam ñu ko tudd mooy jàng ñaan ak tudd yàlla jàng alxuraan ak yu demee ni yoom dee xol di fas nag bëgg yàlla ca la bokk ak yonent bi sallallahu alayhi wa ragal yàlla ca la bokk dellu ci yàlla sellal sa jëf te yàlla rekk a tax muñ ab dogalam wala ab àtteem sant xéewalam gërëm ab dogalam ak lu ci moom yaakaar yërmandeem ragal mbugalam yooyu yëpp ci jaamu yàlla yi nga xam ne xool da koy fas euh, jaamu googu nekk lu am solo lool ndax xam nañ ne mooy da mooy li tax sun boom bindu nu nun doomu aadama nit ak da dara taxut yàlla bind lu may gën jaamu ko dong dong dong ndax ne binduma nit ak jinne lu may ñu jaamu ma eh, kon ñu dégg ci ko binduñ nu ngir fo binduñ nu ngir rek bayal no fu nu neex jëm mbaa lu neex wax mbaa lu neex jëf waaye dafa am taxqiq bu am solo boo tax moo tax suñ ba mbindunu te mooy wéyal ndigal yàlla subhanahu wa taala na alxuraan rocc ci wax ci lu bare bare bare bari wax ne yéen nit jaamu leen seen borom bi nga xam ne moo leen bind ak ña nga xam ne bind yi ña leen jiitu woon lépp ngeen ngeen ngir ngeen ragal yàlla jaamu googu nag nekk lu am solo loo xam ne solo si dana feeñe ci risaala bi nga xam ne moom la jox yonent yépp benn risaala la yonent yépp benn risaala la leen jox ñoo bokk li ñu doon wootee ndax suñu borom nee na yónni wunu benn yontu lu la jiitu yow Muhammad lu may wax yu nañ ko ne amul benn buur bu may yàlla e, kenn du buur ko may man yàlla rek kon nageen ma jàmm kon ibaada googu moo tax nu moo tax nu bind moo tax ñu yónni yontu bu yàlla ma sa yónni itam loolu la ko yónni amul benn yonent itam boo xam ne wootewul woowul aw nitam jëme leen ci topp yàlla ak jaamu ko soñ leen ca taxaw ca temm yonent yàlla noox la ko sunu Boroom wax mooy wala xad sanna la xad sanna nooxan ilaa xawmi xaala yaa xawmi u'budu llaaha maa lakum min ilaahin noox waxoon na aw nitam ne leen yéen jaamu leen seen boroom ndax amulim benn bu mooy moom ndax ragal naa ci yenn mbëggalum bis boobee yent yàlla huut moom la yàlla yoon woon ci giiru ko mu bokk ci ñoom wa ila aadin aqaahum huuda xaale yaa xam ne boobu la malakum ilaahin ghayru huut dañ ko yoon woon ci giiru ko aad ñëwee lam leen wax mooy yéen nit ñi jaamu leen seen boro ndax amu leen benn buur bu may moom ni ko noonu yontu yàlla sa yontu yàlla saalix moom la yónnoon ci giirug Samuud te ñoom la bokk sun borom ne wa ila Samuuda axaahum saaliha xaal yaa xam yaa xam ibudullah malakum min ilahin xayru yéen ñi jaamu leen seen borom ndax amu leen benn buur bu may moom ni ko noonu yonent yàlla Shuayb mu la yónnoon ca Madyana ci ñoom la bokk laa wa ilaa Madyana axaahum Shuayba xaala yaa qawmi ubudullaah maa lakum min ilaahin ghayruh kon yonent yépp ñoo bokk lu wax ñoom ñépp lañu wax seen seen nit mooy jaamu leen seen borom ndax leen benn buur bu may moom bu waye sa jaamu jaamu nga am njariñ ñàkkaa jaam am lor may moom yàlla subhaanahu wa taala jaamu nag suñ boom soññee ci mu nekk loo xam ne du dakk mukk li fekk sag dund li fekk yaa ngi ànd ak ruux di ànd ak sam xel du dog mukk moo tax suñ boom ne ko jaamul sa borom ba keroo ngay faatu wax bu dara bëgg xataa yatikal yaqin naga jaamu ba keroo faatu di ñëw loolu moo tax Sëriñ Tuubaa nag baax a baax a baax a yéen nañ jaamle seen borom te jaamoo ko ci sunna sunna si nga xam ne lu yonent bi sallallahu alayhi indi mooy jaamu gu dëppoo ak sunna laazim ibadati l ilahi bi tuqaa ilal wafaati walturum min hurtiqaa naga taqoog jaamu yàlla te teg ko ci ak ragal yàlla ragal yàlla jaamu yàlla gu ànd ragal ba keroog ngay faatu te nga sàkku ak yéeg ci moom wal tasbiru maan alal ibaada li wa ci man kaffal ada ibaada na muñ jaamu gi ndax jaamu mën naa doon jaamu gu metti eh, lam la la ca nekk ci ay coon ak yooyu toggoog muñ gaag ya ci aj yëpp xam lu jafe la ngeen nanga ko muñ ngir jëm yàlla mi nga xam ne moo fegal ay jaamam lor أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على السلام الله أكبر الله noonu mu ci soññee ci ñu farlu ci góorgóorlu ci noonu ci noonu la ko doon dundee moom ci boppam jëfe ko noo xam ne eh, mën naan kenn fekku ko ca feesal ko ci ay waxam feesal ko ci ay jëfam ca lay wax ne uddimu lahu ma ishtu insha ibadatan wa arju xaboola minhu xaturisul wisba janaa sax di ko jaamu li feeg maa ngi dund bu ko sobee te yaakaar nag mu nangul ma ko nangu goo xam ne moo jural lépp luy xéewal del waxaat ne sama lépp jaamu yàlla la ak liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi kulli ibadatu rabbi linnabi xidaman alayhi bi ishhaadi sama lépp jaamu yàlla jaamu yàlla gu teg ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi waaye waxit na na ngeen na na ngeen na yéen saxal seere ne du ma jaamu kenn ku may yàlla jaamu yàlla yu koy jural mbégte wajal wajal xayaati ibadatan tadum lahu bisharatun tuqaddimul xadim moo tax sax ba ko ña ko daa tagg ku mel ni Cheikh Sidé Ba bu mu koy tagg lam ko tagge mooy jàmm yàlla goog yi nee na sit amul jenn ay lu may rek jaamu yàlla ak jariñ bindeef yi ci ay subaam ak ngoonam wa ma ayibuhu illa ibadatu rabbihi wa nafan ora fi subhihi wa masaihi kon loolu mën nañ cee wax lu baree bare baree bari lépp dafay tegtale kon tedd da ngay jaam yàlla ak solo soo xam ne am na ko ak nekk bu nekk wasila maanaa aw yoon bu ngi jaar ngir mën a mucc ci mbugalum ëllëg waaye yoon wu ñu jaar ba mën a tàbbi aljanna eh, te bokk ci li nga xam dañ ko waral ci doomu aadama mu xiir ci te di ko wéyal kem kàttanam di ko joxe ci nam gën a rafete waaye nag def Sëriñ Tuubaa muy royuteefam ci lépp e, te bañ caa ëppal bañ caa yéesal waaye nag diine moo dafa séddli ko ñaari xaaj jaamu yàlla ñaari xaaj la séddli ko amutum ñetteel mooy rek moytu tere ak topp ndigal yi ñaar yëpp ñaar yooyu képp la séddli ko yi ak topp ndigal yi loolu la Sëriñ Tuubaa di wax ne yalam bi anna diina chatrani kama nassa bihi xabli baadul xukama nee na borom xam-xam yi ma jiitu yépp yaxal nañ xamle ne diine ñaari xaaj rekk li séddli ko fa awalun tarkul manaahi mutlaqa dail manaahiya li baaqin atlaqa wa thani fi'lu kulli shay'in umira bihi wa man yudimhu yukfal umara nee ba ci njëkk mooy nga bàyyi tere yi mboolem tere yi ni ko na bàyyi tere yi ngir jëm yàlla rek nag ñaaree mooy jëfe ndigal jëfe lépp lu ñu digle ndax ku saxal jëfe ndigal def na ko fegal eh, lori wóor yi lakinnamal awalu afxalu la daa man amano walazimu tajallu daa nee na na nga xam nag bu njëkk bu ñaareel bi eh, eh, bu njëkk bi moo gën a diis mooy bàyyi tere moo gën a diis jëfe ndigal moo gën a nag bàyyi tere moo gën jëfi ndigal waaye moo gën a jafe it nag moo gën a diis ci ñi gëm yàlla mu ne kon nag kon kon faaw lay tax nga man kon mooy nga góorgóorlu eh, fexe ba not sa bakkan wa fi kalaamil Mustafa salla ala filaali wa sahbi alladi ubdi ula lafdul muhaajiri ila tamaami fajtani bi suu abi la ilmaami wa hakada lafdul mujahidi warad anhu alayhi min ilahin infarad mu ne ñëw na ci wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xadis boo xam ne eh, mi ngi tàmbalee ci al mi ngi tàmbalee ci al muhajiru mu ci junj xadisub al man haaj man haajara man haajara ma nahallahu anhu aji gàddaay dëgg mooy ki gàddaay li yàlla tere subhaanahu wa taala mu ne am na xadisa bu tàmbalee al mujahid mu ci junju xadisub al mujahidu man jaahada nafsa kii jihaar dëgg dëgg dëgg mooy ki jihaare bakkanam fe fele gàddaay bi mu bu njëkkee mooy al muhaajir mooy ki gàddaay gàddaay dëgg mooy nga gàddaay tere yàlla yi jëm ci ndigale suñu borom yi fii nag mu ne jihaad ka dëgg mooy ki jihaad ak bakkanam mu ne kon na ngeen topp ndigal yi te bañ te di ca gaawantu saa surate tey mooy tari te bañ ca xëccoo imtathilul amra ma at tasaaru'i wa tanibu nahya bila tanasu'i sëñ biit di xamle ne eh, wax ne naga naga tab naga ragal yàlla moytoo génn ci lim la tàbbal ci ay ndigal ci ndigal yi kon naga tàbbi aljanna naga moytoo génn ci li la yàlla e, tàbbal ci e, maanaam mooy mooy moytu yi lim la tàbbal waaye moytoo tab ci lu mu la tere muy muy muy teree nga moytoo ca tabbi ndax ñoo yoon yi jëm sawara mun ko bëgg ak ci yàlla subhanahu wa taala bëgg a jàpp ay xarit yu muy àndal yoo xam ne ñu ànd ak moom baal jànna na jàppi ndigal yàlla ñooy ay xarit te jàppi yàlla yi mooy ay noon eh, mu ne yooyu nag eh, jaamu yàlla yooyu bu dee tere yi te lim jiblu mooy lu xaraam lu ñu sib ak lu amul njariñ ñoo yoon yi sawara yi te ko bu aw yoon te taxawut yàgg-yàgg dana àgg ca fa yoonu jëm waaye itam topp ndigalit ak bàyyi tere du maanaam lu may gannaaw bu jàmbi bi xamee la ko war lañ ko digal ak lañ ko tere la muy tekki mooy kon mënta am lu may gannaaw xam-xam bu wér te ni ki mën a jaamu yàlla jaamu yàlla gu sell la ndikki ci lay xam loo ay faratey jëmmam xam atte yi ca aju ci julleeg woor ak yu dul ñoom ci xeeti jàmm yi nga xam ne yëpp dañ koo gàll ci mbaggoon doomu aadama nga du mbaggu mu nekk te kenn mënu kenn mënu ko caa wutu moo koy defal boppam moo tax mas naa def benn xitaab bu jëm ci mboole murid yépp waxoon ci ne bàyyi na ci man jëm ci mboolem murid yi nu yóbbu tey bu musal ñëpp ci seytaan yu góor yu jigéen yi tey tàbbal ñëpp jàmm ak mucc àddina ak ne gannaaw loolu digg naa képp ku aju ci man ngir jëm yàlla tabaaraka taala na xam lu ay pas-pasam muy tawhiid la caabu aju àttee laab yi julli woor ak yu dul ñoom ci lépp lu war mukallaf mais loolu ne digg naa leen naa dinaa leen ci taalifa ay téere lam ñu diggoon def na ko bind lu doy bind na lu doy sëkk ci tawhiid bokk na ca waahibul quddus bokk na ca alximdatul mutahara bokk na ca faydul ghani al mughni ak yeneen wàllu fiq mbir bi ñu ci doy sëg jeexu nafis moo ci gën a siiw waaye sul siñaar ci tasu seexal ak sul siñaar ci tasu subaan ak yeneen xiitan yooyu wesar yu bari ba tey tasawuf moom ci la ëpp lu mbind bind na ci lu bari mu nawiru sudur ma xalixu niiraan a joxe daal xaaj masaalikul jinaan ak xoqal eh, buka ak yeneen ak yeneen ak yeneen mu yu bari kon digal nanu eh, soññu nu ci xam-xam bindal nu cey téere kon moom waa wàcc noo ca des waaye bu bindee ba noppi njàng ko daf noo digal daf noo digal jaamu ko wax ne moom ca la nekk ca la nekk lu it kon du dagan ci mépp men mu kalaf muy muy muy jëf jënn jëf te xamul njëkk lu ci atab sharia moo tax kon jàng kon jàng kon nekk farata nekk farata waru gar waxoon na si mbiin bi na ci lu bare bari yàlla na suñu boom bool dimbali bon defal tawfiq xiir na ci njub te saxal nu ci def nu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nangalu suñu taalibe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 صلى الحمد لله الذي أشرق في قلوب من شاء من عباده أنوار اليقين فنشطت جوارحهم جوارحهم لطاعة رب العالمين نحمده تعالى ونشكره على إنعامه المتوالي كل حين ونستعينه ونستغفره من ذنوبنا التي كل منا بها رهين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اعلموا أن الدنيا وما فيها خيال وسراب وأن ما فوق التراب تراب وقوم أسربت قلوبهم حب الدنيا فشغلوا عن التزود للآخرة باللذات والأغيار وعكفوا على طلبها وجمعها آناء النهار وقوم, وقوم ملئت قلوبهم بالمعارف والأسرار وفتحت منهم البصائر والأبصار فسمعوا قوله تعالى إنما هذه الدنيا إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار فتوجهت هممهم إلى دار إلى إدامة الاستغفار وتسبيحه سبحانه وحمده بالعشي والإبكار ولازموا بيوت الله في أرضه لقوله في حديثه القدسي إن بيوتي في أرضي المساجد وإن الروادي فيها عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره الحمد لله لا إله إلا هو لا نستعين إلا به ولا نعبد إلا إياه جل الله مولانا اختار نبينا محمدا واصطفاه ووفاه من خوض اختصاصه ما وفاه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكل من والاه ما أقيمت الصلاة وقامت الأشياء بالله أما بعد فيا أيها الناس إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله فهي أم الطاعات وسيد القربات laa tuqbalu qurbatun illaa bacda qabuuliha walaa yundaru lilcabdi fi fariidatin wala naafilatin illaa bacda tamaamiha bifusuuliha fa ahdim biha min cibaadatin yunaadi alcabdu fiha mawlaa وناهيك بها من طاعة تكفر ما تخلل بينها وبين أختها من ذنوب العبد وخطاياه فأقيموها أعانكم الله في أزمانها المعينة وأوقاتها ووفوا حقها من الاعتدال والطمانينة وصححوا عقدها بالإخلاص والخشوع والسكينة وفقنا الله وإياكم للطريقة المثلى وألهمنا جميعاً لتدبر ما علينا من القرآن يتلى وغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين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 sabbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada walladhi akhraja al-mar'a faja'alahu fuhaa'an nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah innahu ya'lamu al-jahra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 سمع الله لمن حبنا لك الحب الله أكبر الله الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين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 سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.